cher amee internet yéen mi safoo duñu bàyyi xel fii si Melokaan TV kon ni ñu koy defee tantôt ah métti la ñu am ak contentement jàkkaarloo ak yéen tey na ñu defee li nga xamante moom mooy public reportage euh, par rapport ak euh, tey li nga xamante ne moom mooy loi d'amnistie bi ñu nar a voté fële assemblée nationale ñu toogan euh, ak suñu benn naataango sëñ bi maa ngi lay nuyu soxna si maa ngi lay fay baax baax di rafetlu Malik laa tudd Sam. Malik, Malick tey ñu seet len fi no euh, noo euh, vote bi nga ne ni ñu amal fele ca assemblée nationale pour loi d'amnistie bi. man loolu moom mënu dakor cee d' quoi ndax man dakor mo ma ci yàq ak dami ñi nga xam ne dañ ci am jabar gu aduna, tay tey ñu koy jooy pareeguñu nga génne ñi nga xam ko def loolu man mënu maa ñi nga xam tamit alal dañ ndax ñun ñoo xam seen i dépôt lañ dajji sàcc ci tey nga bàyyi leen ñooñu lee day feeñaat ci seen xol quoi waaw te lii day yeeyaat xol. day yeeyaat xol waaw day yeeyaat xol quoi ci anam yëpp ndax tey benn bu fekkee ki nga xam ne da cee daj da cee da cee rayoon ah biñ biñ jàppee ñee tëj leen moom mën na wàññeeku waaye fi mu toll bu ñu administré lii ñëpp bàyyi leen moom affaire boobu dana yeeyaat xolam waaw te lii du yoon ndax boo xoolee xanaa kon ki sàcc démb démb xanaa kon ki sàcc démb dajji magasin jàmbur bañ jàpp xanaa kooku dañ koy bàyyi ah léegi ñi nga xam ne keroog dañoo sàcc ay liir kees kees ñu jàpp leen ah xanaa ñooñu dañ leen di bàyyi pour lan yoon dafa am damaa bëgg ñu topp affaire yi. topp affaire yi daal topp ko ba mu leer ki jàpp ki def ñu xam ne moo def ñu teg ko ci yoon. ñi rey ñu xam ne ñii ñoo rey ñu teg leen ci yoon ñi sàcc ñu xam ne ñii dañoo sàcc ñu teg leen ci yoon képp ku newul ci yoon ñu teg ci yoon man loolu laa d'accord quoi. ndax loolu mooy réew waaye bu fekkee lii buñ ko defee nii xanaa kon ku euh, kon nañu tijji kaso yi ah. tijji ko bàyyi ñëpp génn loolu nga gis laa gisee ndax mënoo bàyyi euh, lu danger ba pare di jàpp kii euh, kii saa ci benn ginaar. d'accord mais aussi nu mu parce que gis nañ ni euh, ku ci mel ni tey euh, euh, waa PUR ak waa PASTEF ñoom dañoo ne ñoom ñoom seen yoon neewu ci ñoom dañ ciy maandu mais gis nañ ni ku ci mel ni waa PDS ñoom nee nañu ñoom pare nañu pour bokk si voté loi boobu la. non loolu moom ñoom la la ñoom ñuy politique loolu ñoom la intéresse quoi man du ma politique seen waaw man citoyen la bu dëkk ci réew mi bëgg réew mi tamit képp koo xam ne da ngaa def ñombe ñu teg la ci yoon. man ci noonu laay taxawee waaye pas politique man soma yoon nekkul ci politique ànduma ak kenn. du dëgg waaye li nga xam ne lii dañ ko war a def ma wax dëgg yàlla man d'accorduma ci ndax yàqal nañ ay nit alal yi ñu yàq osan yi ñu yàq ah loolu du yoon ah kon affaire yi nañ ko teg ci yoon rek man loolu laa d'accord. waaye pas politique moom sama yoon nekku ci. mais ginnaaw bi ensemble national nekk ñu ne penc ndaw réew mi tey député yi askan bi ñoo leen fa teg bu ñu ay que war nañu di lu ñu wax nañ bi askan bi te ñoo leen fa fàtte. non ensemble moom bu doon may ñoom bu ñu xool kenn nañu xool askan wi leen fa teg nañu nañu nañu nañu déglu askan wi quoi bu ñu dégloo askan wi rek duñ voté lu ñuy juum quoi. man ci sama gis-gis bu dee déglu nañ askan wi leen fa teg ñoom du ñu voté ci ci erreur waaye bu ñu déglul askan wi rek mën na nañoo voté ci erreur te voté ci erreur xam ngeen lu muy jur. Ah, waaw waaye biñ ko biñ ko déclaré yàgg na xam ah, nga biñ ko déclaré yàgg na te boo xoolee li majeur ci réew mi d'accorduñu te ñoom askan wi ñoo leen fa teg ci liñ wax. kon bu fekkee askan wi ñoo leen fa tek nañu jëfé li xam askan wi mom la bëgg ah, waaye li mom man gisu moom benn nit ku ci wara and quoi waaw ku raisonnable waru ci and xawma nak kenen waaw man loolu la gëm quoi ke euh, loi amnesty bi nga xamantene ni ñu ngi koy voter fele ci assemblée nationale. non loolu mom ni mo ko mom day yakum rew quoi Macky man wax deug yalla mom la andal commencement ba fin. ba léegi moom la àndal mais loolu moom ànduma ci parce que loolu noonu bu ko defee tey ji moom bu fi jógee boo lëgee keneen ku toog soo ñëwee itam nit ñi dinañ def lu leen neex di séentu ñi baal leen loolu moom ànduma ci baale bi moom ku def loo xam ne nekk lu demee noonu surtout ay crime ay ray nit nañ la teg ci yoon nañ la denc fi ñu la war a denc bu ko defee boo lëgee bu fi keneen toogee loolu kenn du sawar di ko def di rey wala di taal wala di lakk bay gaañ nit wala ay nit di ci dee waaw ànduma ci daal baale bi moom ànduma ci quoi. Euh, ok mais euh, mais tey euh, est-ce que war nañ toog fi nga xama xamante ne ni moom mooy assemblée loi loi bu ñëw rek bu ñu buggee pour mu jàll rek ñoom ñoom ñoom ñoom tamit dañuy ñëw rek voté ko sans pour autant xool conséquences yi lan la war a jur ëllëg. waaw loolu itam chaque jour souvent dafay nekk sama xel des fois su déglu journal wala mam ci puis itam ñoom dañu war a xam ne bu ñu leen falee député pour askan bi la mais nekkuñ pour président wala pour ministre wala pour maire. même ci at yi jàll ak yi di ñëw yëpp sénégalais ci boppam ñoom ñoo war bàyyi bu ñu leen falee ñu dem foog ne comme tey jii nii président wala lenn dañu war a fi nekkal askan wi am lenn loo xam ne mu jaral la sax nga yàquwante ak président buñ la waxee wooteel lii nga xool xam ne lii jaadut lii jëmalewul réew mi kanam nga bañ ko voté ba paré taxaw itam woné sa bop deugal sa bop mais nekkul ne da nga nan man dam fi nek ngir maki wala dam fi nek ngir kenen après lu mu teg rek après damay woote buñ waxé dama nan wi waaw loolu moom ànduma ci itam waaw. mais aussi euh, souvent euh, da ngay dégg nit ñi né euh, loi bobu noonu warna warna ke na comme boog lu wara am la. non xam ma man nak mom man nak mom wax deug yalla duma la nëbb Macky laa andal mais bo demee ba xam yow li ni bo ci duggé da ngay dem ba ci biir di wut. piste boo génnee nga bañoon ko def moo ko gën te fi mu toll nii tam bon gisuma fi lu waram bu doon beneen genre problème la nga ne waaw mais problème boo xam ne entre trois ans dégg naa ñu ne xaw ma deux mille ba ci fi ñu toll nii waaw lépp lay baal mais réew du demee noonu tubaab yi ñun foofu la ñu rawee duñ duñ demee noonu bàyyi nit ñi ray doomi jàmbur yi ba bëgg dee jékki-jékki nga xëy ñu ne noo nañ leen baal waaw. lool lool lool dëkk du réew warta mën a deme noonu parce que aadama itam bakkanu doomu bakkanu mala sax dafa foor waxuma la ak bakkanu doomu aadama waaw man moom ànduma ci lool loolu noonu pexe moom muy teg moom ànduma ci tey itam tey ji nii bëgg naa tout le temps itam fu may wax fu ma ko mën a waxee la deux daal bu jotee man su ma sañoon ñun moom lañ àndaloon mais comme gouverne na toog na la 2 avril bii desalatu ko weer na dem si jàmm ak salaam sénégalais yi nekkaat si jàmm ak salaam képp ku fi yàlla teg mu ñëw toog Sénégal moom gis naa ne léegi képp ku fi toog te toogee woo fi ni nga fi war a def gaañu duñ la may dara ñetti fan sax doo ko fi def nga commencé am problème waaw waaw. billahi man maa la li man fi mu doon nii bu xam naa bu ma ko waxee nga ne kii est-ce que karim njiitu réew man bu ma doon tànn danaa tànn leneen lu dul lool bugguma ko sax doon. góor gi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey noo gisee loi amnistie bi nga xamante ne ni ñu ngi koy voté fële ca assemblée nationale pour wala contre. gis nga nit ñi xaw ma député xaw ma ministre ku na nga sóoraale sa bàmmeel ëllëg boo dee da ngeen di dee de te bàmmeel dafa yàgg da ngeen di dee sóoraale leen seen bàmmeel ëllëg xaw may député xaw ma lu ngeen doon ku ci ne bala ngaa dee lépp loo def ci lu baax yàlla na la ko fay bala ngaa dee lépp loo na la ko fay sóoraale leen seen bàmmeel réew mi nag nit ñi sonn nañ te dara warul ko lu dul jeunes yi di dee dara warul ko lu bëgg seen réew ak am leen naqari yi du bañ Macky Sall du bañ réew mi du bëgg taal Sénégal réew mi li nit ñi doon xex ci maam yi batay mo moom ndaw ñi di xex ndaw ñi ñoy doon magi ëlëk am réew nak buñ la ko joxé da nga war xol sa diggante ak sa yalla ëlëk te xamni da ngay dé ñun Sénégal ñun ñëpp ko bok amul lakkat amul catholique amul julit ñun ñëpp ñoo bëgg Sénégal té buñ sañ sun réew mi melni États-Unis wala réew yi ni tuddu ci aduna bi kon nak rew mi nan and defar ko te yalla tax te bàyyi tiaxan d'accord mais pas sigil tuuti rek sigil tuuti pour li ngay wax euh, nit ñi mun koo dégg euh, waaye tay sa gis-gis ci vote bi. suñu gis-gis ci vote bi ñun. Euh, kon boog ñi fi dee yëpp dafay nuyu. ñun sunu gis-gis ci vote bi leen fekkee. ca jamonoy Abdou Diouf man fekk naa ko Abdou Diouf. Ah, fekk Ablaye Wade. mais réew mi ni muy doxee nii musuma ko gis. ban dalee fekke ab Diouf ba léegi ab Wade li mu réew mi doxee nii mosuma gis Sénégal li muy doxee nii ci ay métit ak ay jafe-jafe. loi bi nag xaw ma loi lu mu doon xaw ma ñoom da leen arrangé waaw da nga may déglu rek da nga maa laaj danga may déglu xaw ma loi bi lu mu doon xaw ma ñoom lam lay arrangé xaw ma population Sénégal lay arrangé mais loi bu mu mënti doon képp ku koy woote ensemble na nga sóoraale àllaaxira ëllëg ak sa bàmmeel xaw ma nag ñu mu arrangé xaw ma arrangé na état bi xaw ma arrangé na opposition mais képp koo xam ne yaa ngi ciy wote la ngay wote sóoraaleel sa bàmmeel pour ëllëg ndax li nga def fii bala ngaa de yàlla na la ko woon la ngay fekk ëllëg boo demee xamoo lu mu doon kon nag war nañu sóoraale àllaaxira ëllëg ak bàmmeel sóoraale leen bàmmeel yi de bala ngaa faatu lépp loo def ci lu bon bala ngaa dee yàlla da la koy wat yemul fii kese de waaw loolu laa mën lu may wax.